dañu am bébé bu bees bu juddu suñu bébé bi nag moom la woowee la NAC tey nag lu waraloon sax euh, charme charme bis bi ak charme mbootaay bi ak jotaay bi toog mooy ni que ñi fi toog ñëpp c'est des jeunes des jeunes déterminés à participer au développement du Sénégal ndaw ñiy toog ñëpp ay mouv ay ay président de mouvement lañ mënoon nañoo nekk di def leneen ne ay ndaw lañu mais tey dañoo déterminé ne dañuy ñëw xeexal suñu réew dañoo toog ba gis ne Sénégal ñun ci suñu bopp ñun jeunes yi ñoo war a jóg jël ko en main. c'est quoi la politique ndax politique bu ñu nee c'est la gestion de la cité man tey damay fier damay kontaan bu ma gisee ay ndaw tey taxaw déterminé wu ne dañuy xeexal suñu réew dañuy ñëw gérer suñu dëkk ndax Sénégal yàgg naa ko wax. c'est un pays bi nga xamante ne tey on est très riche en ressources naturelles et minières tey Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xamante ne bu ñuy lim lu ñu am rek dañuy dañu war a nekk un pays vraiment euh, développé mais xëy na gestion bi moo jaarul ci yoon léegi tey ndaw ñi nga xamante ne ñooy ñàkkaaru réew mi ñoo jóg taxaw boole suñuy doole boole suñuy xam-xam àndandoo ne dañuy xàccandoo ñun ñëpp dóorandoo ne dañoo fas yéenee taxaw liggéeyal Sénégal dañoo fas yéene conscientiser les jeunes dañoo fas yéene ci élection présidentielle yi ñun ñëpp ñu ànd ci dem dañoo fas yéene Sénégal nekk un pays exemplaire te loolu mënul am sans les jeunes ndax xëy na bu yàgg ba politique dañ ko bàyyi woon ak mag yi rek paa yi peut-être maire yi les personnes âgées mais tey ndaw ñi ci seen bopp dañoo dañoo yeewu ndaw ñi ci seen bopp dañoo toog xam ne kenn mënuñu liggéeyal à notre place lu ñu moom ñun ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp liggéeyal suñuy rakk liggéeyal suñuy doom liggéeyal la génération future ba tax na tak tey nouvelle alliance bi juddu ñu ciy woo nag tous les présidents de mouvement tous les organ toutes les organisations de la société civile toutes les associations bàyyiwuñu kenn ndax mbooloo mooy doole donc tey bi ñu ko commencé yàggul waaye tey mat nañ une quarantaine de mouvement ñi nga xamante ne tey président yi ñoo toog nii te ñëpp sax mënuñu ñëw mais dañu ne woon rek nañu def su notre baptême de feu présenté ko à la presse sénégalaise ndax lu baax it dañ koy wone te dañ ciy gaaw ndax li ñu desee pour les échéances présidentielles bëreetul moo taxoon daal tey ñu ñëw toog euh, Serigne le coordonnateur il vous a listé nos sept objectifs yi nga xamante ne yaakaar nañ ne lii buñ liggéeyee programme yi Sénégal incha allah dinañ ko dégg fu soree soree sore je pense que aussi Abdouma il a fait une très bonne présentation du de l'alliance ndaxte ba mu juddoo yàggul waaye incha allah dinañ am nañ ci yaakaar te fas yéene noonu taxaw euh, liggéeyal Sénégal lu mu cib ay jërëjëf di bàyyi aussi Malick. Euh, euh, je te laisse Abdou. <laughs> nuyu ñëpp déjà ñu ci salle bi ñu nekk sama ginnaaw. Euh, di nuyu toute la presse a képp koo xam ne mi ñuy seetaan wala di ñu déglu à travers vos euh, réseaux euh, je suis Malick Ngaïdé je représente la Renaissance patriotique pour le changement du parti politique je suis aussi le créateur de cette plateforme luttons contre l'indiscipline au Sénégal xam naa ne dañ ma xaw a bett nag Abdou mais c'est juste peut-être damay xaw a demee freestyle message de d'appel lay doon ak de de de sensibilisation ci jeunesse sénégalaise aujourd'hui euh, ñi ngi nekk 75 pour cent euh, yoo xam ni ci dëkk bi ay jeunes lañu pourquoi ñu war a bàyyi peut-être benn minimum euh, muy 25 pour cent bëgg diriger wala ñun jeunesse bi bëgguñu wax lu ñuy def wala fu ñuy jaar te ñun ñu gën a mën a xam fan lañ jëm donc. tey nous avons créé euh, alliance bu bees bi nouvelle alliance pour le changement NAC euh, ngeen gis suñu ginnaaw au moins benn quarantaine de mouvement nekk ci euh, suñu camarade Kumba mi ngi koy wax léegi ñu ngi ciy woo képp koo xam ni da nga yor mouvement wala danga nga yor alliance wala association mais man ma ci yox képp koo xam ni sénégalais nga jeune nga wala ngay sénégalaise nekk jeune bokkoo sax fenn et nga soucieux de l'avenir de ton pays nga mën a ñëw bokk ci alliance bi parce que li tax ñu créer alliance bi mooy liggéeyal suñu Sénégal mais surtout jeunesse bi nga xam moo fi nekk parce que dañu gis ni jeunesse bu bëri ci dëkk bi dañu leen bàyyi dañu leen fàtte tout le temps ñi ngi waxtaan problème politique ñi ngi waxtaan problème mu diw ak diw ak diw ñun on est la pour la jeunesse donc du ma guddal pour bañ leen retenir parce qu'on a beaucoup tardé mais képp koo xam ne ndaw nga nekk ci Sénégal wala nga nekk hors Sénégal nga jot ci message bi boo mënul bokk tamit nga gis ni que lii avantage la pour jeune sénégalais yi fi nekk nga mën a jàllale ko parce que ñi fi toog ñëpp ils sont soucieux de leur pays xëy na tey euh, ñu su bëri ci ñun yor nañu sax liggéey yor nañu seen yëfu bopp mais dañuy xalaat ñi nga xam ni euh, ñoo toog tey bëgg euh, jàll seen message seen baat amul fu mu egg wala bëgg nañu def dara pour seen dëkk wala bëgg nañ bokk ci benn affaire pour changer loo dara seen dëkk mais xamuñu fu ñuy jaar donc là c'est le moment de le faire ñu ngi ciy woon ndaw yëpp képp ku nekk Sénégal képp ku nekk aussi en dehors Sénégal jërë ngeen jëf